tàllal leen loxoy gën alhamdulillah nacmaduhu wa nastacinuhu wa nastagfiruhu wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmalina man lah waman yudlil fala hadiya la wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ala man qaala buistu li utammima makarim al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi mbokki téléspectateur u FKR 92 point com waa kër fondation Rassoul dikkaat nañu fii ak yéen di def ak yéen seen émission ma sopp rasulillahi alayhi salaatu wasalaam tey nag tabaarakallah sunu rakk gane suñu di borom kër gi bokk ci membre fondation kër Rassoul am fi émission tabaarakallah di Moustapha Rassoul kenn dootu ko présenté kenn dootu laaj mooy kan ñëpp xàmmee ko ci cofeelam ci yonent yàlla Muhammad ak ci daggam rasulillahi alayhi salaatu wasalaam tey mu nekkoon tey suñu invité ci émission bi macha allah tabarakallah kenn ku ne xam ne ni ku bëgg yàlla bëgg la da bëgg Seydina Muhammad ku bëgg yàlla téye la da ngay bëgg rasulillahi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah yaxfir lakum zunubakum yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam yàlla mi ngi wax ci alxuraanul karim ne bu fekkente ni bëgg ngeen bëgg ngeen yàlla na ngeen sopp Seydina Muhammad ku sopp Seydina Muhammad Mustafa Rasul ku sopp Rasul lay sa turandoo mm-hmm. yàlla sopp la mm-hmm. te ku yàlla sopp soppi la te ku yàlla soppi taf la ci boppam te ku yàlla taf ci boppam nga mucc àddina mucc alaaxira qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah yaxfir lakum zunubukum allahu akbar xam nga yàlla subhanahu wa taala zakamal dafa jël rasulullah alayhi salaatu wasalaam dox naan defar ko ba mu baax yàlla moom mu defar ko ni ko bëggee subhanahu wa taala azakamal gannaaw bu mu ko defaree ba mu baax defar ko ni ko bëggee mu ne leen seen exemple mi ngi nii mm-hmm. dama bëgg ngeen royal ma ko bu ngeen ko royee rek mucc àddina mucc àllaaxira in tuti uhu të yàlla nee na ku topp sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam jub ndax kenn rek amee njub muy sayiduna muhammad mustafa sa turando tey la ñu tey نبي أنا كل لنا من مقدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا حفظ السميع ذكرنا الوالد صلى الله عليه وسلم في الكائنات كشمس في سماء الطلال صلى الله عليه وسلم واسقي لمسخ النبي جل خالقه لهما بدون رسول الله لهما كان الملك الله منتزما عليه الصلاه والسلام دنيا وقرى به كل قد افتتحت عليه الصلاه والسلام قد كان نورا عليه الصلاه والسلام ولا لوح خادم سصوب سيدنا محمد بدون موم duñu lekk duñu naan kenn duñu xam Seydina Muhammad Moustapha kookoy Seydina Muhammad sa turando Noora Abdullahi Cheybata Hachim Abdou Manaf Xusey Kilab Morata Kaab Luway Ghalib Fihrin Malik Nadar Kinaana Xuseymata Mudrikata Ilyas Mudar Nizar Mat Adanan man ak Moustapha dama tàmm bala muy fiir benn baat ci Moustapha foog ma tagg ko kañ ko sallallahu alayhi wa sallam si soppe ay laka mujizatun haajat kullal wara alayhi salaatu wasalaam Moustapha bala ngay xam ne Seydina Muhammad gën ku yàlla bind bala nga xam ne Moustapha sallallahu alayhi wa sallam raw ku yàlla bind bala nga xam ne Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo gënal yàlla ci kaw suuf nga dem Madinatul Munawwara alayhi salaatu laka mujizatun hajazat kullul wara sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla bëgg moom la yàlla fal moom la yàlla faale bu boo bëggee falu da ngay topp ci Moustapha Moustapha Rasoul bala ngay xam darajay Seydina Mouhamed dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla na yéex ñu dugg bàmmeel Moustapha Rasoul yégoo ne boo nekkee soppee Seydina Mouhamed yégoo ne boo nekkee ku bëgg Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam boo ne nukk ci biir bàmmeel sallallahu alayhi wa sallam Moustapha daf lay teeru good bu la Moustapha teeroo ci bàmmeel lat la lan nga bëgg mu toog ci bàmmeel di la wéttali di la teral ci bàmmeel ba yomul xiyam taxaw Moustapha Rasoul ku bëgg Seydina Mouhamad bu la Moustapha teeroo ci bàmmeel alayhi salaatu wa salaam boo dekkee da ngay jàkkaarloog Rasulillahi er Moustapha Rasoul bala ngay xam ne Seydina Mouhamad alayhi salaatu wa salaam mu gën ku yàlla bind yàlla ne kayte ma réglé leen. nii ñu dekki def yëfi nit seen ay malaaka seen ay jëmmo yu yéeme nga war a tiit Seydina Muhammad ne la sallallahu alayhi wa sallam daalaal pour yow. laka mujizaatun ajal malaaka yii du nu pour yow yow taxoo ndax yow sama soppe nga. sallallahu alayhi wa sallam ida kaana yowma alqiyamati ana aati baaba aljannati fa astaftihu wa qala alxaazinu man anta ana muhammadu bnu abdullah bika umirtu ala aftaha albaaba li ahadin qablaka alaka mujizatul xaadim waxlu kuy rasulullah Moustapha bala ngay xam ne Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam moo jar a àndal bala ngay xam ne Moustapha jar a bëgg yowmal qiyaam taxaw كل الورى bu yàlla ne wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahdi ilaykum ya bani adama alaa ta'budu sheytaana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqimun wa laqad adalla minkum jibilan kasiran afalam takunu taqiluna hadihi jahannam allati kuntum tu'aduna aslawha alyawma bima kuntum takfuruna alyawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yàlla nee na bu yowmal xiyaam taxawee mën na ñu baax nii moytu leen ci ñu bon bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw war a nag dox suñu digganteeg safara su boobaa safara dafay mer dafay dafay ñàng di sànni ferñeent yoo xam ne mi ngi mel ni gëléem gu nu sëf di sànni ferñeent yoo xam ne mi ngi mel ni taax sëriñ Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kenn ku ne mu teg loxo ne la lii du pour yow bul tiit bul jaaxal ndax yow da nga ma soppoon لك معجزات تعجز كل الورى bu ko defee yonent yàlla mooy sallallahu alayhi wa sallam ne kenn du songu buntu àjjana ndax kenn ku ne mës nga fàttaliku bàkkaar boo mës a def ba doon ñëwee songu buntu àjjana. لك معجزات تعجز كل الورى Moustapha Rasoul xanaa xamoo ni wolof nee na tànk. bu set newu fi bu nu raxasa fi ne kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne yow mal xiyaam di nga tiit di nga jaaxle ndax bu dee benn yoon mës nga ko tooñ yàlla maa ngi way kenn kottu dong kese rekk muy Seydina Muhammad alayhi salaat wa salaam bay Fatimatu bint Rasul moom la bëtam musul bàkkaar moom la tàggam musul bàkkaar moom la loxom musul bàkkaar moom la noppam musul bàkkaar moom la gémmiñam musul bàkkaar moom moo musul la lu naqari sunu borom sallallahu bu ko defee nee na bu ko defee moom nee na may songu buntu àjjana su ma songee buntu àjjana buntu àjjana ka fa nekk am na benn gardien xaaris la boo xam ne mi ngi tudd Ridwan yàlla na yàlla musal nag gardien safara kooku mi ngi tudd Malick waaye xaaris Ridwan moom mooy waxanteeg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Seydina Muhammad nee na ñëppay toog ñëppay jaaxle ñëppay tiit man kese kott dong maa am fitu songu buntu àjjana damay fëgg buntu àjjana su ma fëggee buntu àjjana sakkoo ñu bi ma fa astaftixoo góor ñi moo leen gën li góor gi ñi moo leen gën di gër ku bañ ku la gër wa dem madina sayidina muhammad hajadal kullal waawa bu ko defee moustapha rasoul ridwan moo ko naan man anta yow la kan mu ni ko ana muhammad ibnu abdallah man la muhammad alayhi salaatu wasalaam doomu abdallah ak bu ko defee ridwan tontu ko ne ko bika umirtu ala aftaxal baaba li ahadin xablaka ya rasulallahi ridwaan daf ko nan yàlla nee na yàllaa ma yebal yàllaa ma teg fii yàlla nee na ajjana buntu ajjana araam na ku yàlla binde yàlla nee na ma tëj buntu ajjana ba mu ne ràpp yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam boo dikkee ma ibbi ko ba mu ne ŋàpp yow kese yaa am droit dugg biir ajjana bindoo mbég Moustapha mi may waaye jagal kullal wara bu ko defee Moustapha Rasoul sa soppe ba Seydina Mouhamad alayhi salaatu wa salaam mu ne ana ñoom Xaadim ana ñoom Moustapha Rasoul ana ñoom Omar Cameraman ana waa fondation Kër Rasoul ana président fondation Kër Rasoul ana waa ñi nga xamante ni ñoo sopp Seydina Mouhamad salaa sallam nekk acca dugg leen dugg leen dugg leen ci barke Seydina Mouhamad alayhi salaatu wa salaam nanga tànn yaa tànn bayti laay loxo yi ba ñu niil nanga tànn yaa tànn bayti laay nabi tànn Makka ak Madina bayti ma mu aksaar hee yi dowaan sa bëkk néeg moo di saytu say doom wax leen ami jural na du doom yaay ami jural na du doom xadim sallallahu alayhi wa sallam yaay ami jural nanu doom doom dootu mel ni mukk ba mukk mukk mukk sayyidina walina sayyidil axirina kullu wara sala Moustapha jërëjëf yàlla na yàlla fay la ci barke sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waxtu yu dab nañu tabaarakala seen émission mi ngi noonu di nuyuwaat ñëpp waa fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Moustapha di la waxaat jërëjëf yàlla na yàlla teral la yàlla na yàlla fay la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa boo ko defee seen émission ngi noonu maa sopp rasulillahi alayhi salaatu bu fkr 92 point com di nuyuwaat ñëpp asalaamu aleykum wa